وصل اللهم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح القاتم ناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم رحلك كناكري بين قرقصني بالعلم وتصريفي إن قلت كن يكن بلا تسويفي لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني قليلا وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله وفاض مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله سمد سواء كبار وصغار فالقرب الحبيب والمزار سواء ذكران ونسوان سواء سولوك وسلطان لو شئت أما فيده البسيط وأدركه وأدرك الأسراره المحيطة بين علم ذلك فلان وفلان كذا فلان ما سماه كريان ومرة أخرى ترون عجبا بن فهد ذا القطب إمام وجبا بين وزاك كلا فايدة تجاني مدد مصطفى ورى الأدناني وزاك كلا منة المناني أحمده في سر والإعلان أوجدني حقا لجبر الكسر فإنني وكيل سر سري فرقصني بالألم بالعلم وتصريفي إن قلت كن يكن بلا تصريفي لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني قليلا بين وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله ففاد مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله سمت سواء كبار وصغار قد خرب أبيب والمضار سواء ذكران ونسوان سواء سعلوك وسلطان بين لو شئت عما فيضه البسيطة وأدركوا أسراره المحيطة بين علم ذلك فلان وفلان كذا فلان ما سمعوا كريان ومرة أخرى ترون عجبا من فيض زلقتم القتم إمام نجبا وذاك كلا فيضة التجاني مدده مصطفى الورى العدناني foofu la da ah. bàyyi mu ngi wax mu ne ci baytu 71 mu ne qad qassani bil ilmi wa tasrifi ci rix la Konaakiri yàlla jagleel na ma xam-xam ak tasarruf ba nga xam ne in qultu kun su ma waxee kun rekk mooy nekkal yakun dafay nekk bila taswifi ci lu ànd ak yiixa yiix mu ne yàlla may na ma xam-xam yoo xam ne su ma waxee ak ay tasarufaat su ma waxee kun nekkal rek dafay nekk ci lu du taaxir lu maanaam yiix moo tax mu ne xar xassani jagleel na ma bil ilmi ci xam-xam wa tasrifi ak tasarruf in qultu kun su ma waxee nekkal yakun dafay nekk bila tasrifin ci lu dul yiixa nga bàyyi mu ne waaye lakin na nii lay mbir tey dëgg man ittaxastuhu wakilan def naa yàlla muy sama wéeruwaay ba pare te adduban man nekk ku am teggin ci biir pays yàlla bi loolu moo tax faxtaarani yàlla tànn ma xalilan ma nekk di xaritam wax naa leen lan mooy xarit xarit benn jëmm la yu ñu def ñaari dafa mel tur ak jëmm rek yaa ngi dégg tur xarit la ci ci jëmm melo xarit la ci jëmm yaa ngi dégg pour nga séparer leen dafay metti mënut nekk pour mu mat il faut nit dafay am tur yaangi dégg tour tamit dafay melale dafay wone jëmm yaangi dégg xarit mooy lu génnee ci yow yaangi dégg sa daggit comme nga ne ngàll guru man tamat te ñaari ngàll yi dajewul suñ dajee la ñaari lay nekk benn guru mais suñu seddoowee rek kenn ku nekk xarit nga maanaam ko jóge nga ci sa morom bàyyi nee na nag sama teggin moo may ma nekk xarit ci yàlla ak tamit li ma ko def muy sama wéeruwaay bàyyi mu ne wa qultu ma ne laa ilaha illa allaahu amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg mooy borom bi tabaraka wa taala wa qultu ma ne laa ilaha illa dara amul lu ma yàlla ma teg ci ne muhammadun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam arsalahul ilah yàllaa ko yoon ndawal yàlla la bàyyi ne ne bi ma waxee loolu nag fa faada min nii la sotteekoo tukkee ci man la bëbbee tukkee ci man sirrahu mbóotu laa ilaha illallah daa ngi dégg ci la bëbbee ci man mbootub laa ilaha illallah ba nga xam ne fa laa ahad amul kenn yax si du ni bi may jublu maa arafa laaha sama lu mel ne xam na yàlla kese lu mel ne xam na yàlla mi nga xam ne mooy jubluwaay bi maa arafa laaha sama lu mel ne xam na yàlla mi nga xam ne mooy jubluwaay bi lan la mooy jubluwaay bi yàlla mooy sama daan daaniyatul kubra jubluwaay bu mag a mag bi daa ngi dëgg yàlla la am nag ay mazhar yoo xamante ne ay sama daan comme yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama daan la kaaba gi sama daan la Adama sama daan la moom ñëpp ay jubluwaay lañ waaye tey jii tamit Cheikh Ibrahima Niass sama daan la bu la neexee nga ne moom mooy sama daaniyatul actuellement kubra te moo ko ma a doon itam parce que eh, yàlla bu muy bind doomu Adama dara waralu ko woon lu mooy xam ko te tey ki représenté yàlla ci muy xamle yàlla moom Cheikh Ibrahima Niass kese kon koo jublu keneen ku may moom pour nga am sa mëdët ci yàlla mun ta nekk il nga jublu Cheikh Ibrahima pour nga mën a am mëdët kon na Cheikh ma tey moom mooy moom mooy sama daan bu mag a mag nga xam ne ñëpp moom lañ war a jublu moo tax mu ne fa faada min ni sirrahu mbootam wi bépp tukki ci man ba nga xam ne fa laa ahad amul kenn yax si lu nii bu may jublu maara fa laa sama lu mel ne xam ne yàlla nga xam ne moy jubli way bi bàyyi mu ne sawaun kibarun wa sigharun mo xam mag la wala ndaw la ngay mag boo ma jubloo ma xamal la yalla ngay ndaw ma nga jublu ma xamal la yalla ku jublu ci man rek ma xamal la yalla te yalla rek nak la lay xamal amul lenen luma lay xamal lumay borom bi tabaraka wa taala mu ne xad xarubal habib wal madar jegena na soppe bi jegena na wala dana jegel soppe bi maanaam ku bëgg yàlla dana la jegeel yàlla yaa ngi dégg ba ba nga àgg ci bërëb bi dana la jegeel yàlla ba nga àgg ci bërëb bi képp koo xam ne sopp nga bàyyi sopp nga ko dana la jegeel ba nga ba àgg ku sopp yàlla ku nekk rek yaa ngi dégg dana la jegeel borom bi tabaraka ko taala bàyyi mu ne sawaun zukraanum moo xam ngay góor wa niswaanum wala ngay jigéen góor ñi ak jigéen ñi ñëpp xam nañ yàlla yaa ngi dégg bàyyi góoram yi ak jigéenam yi yëpp xam nañ yàlla xanaa nga ñàkk a jublu bàyyi mais boo jubloo bàyyi ngay góor xamal na la yàlla ngay jigéen nga xamal na la yàlla moo tax mu ne sama jigéen ñi ay góor lañ comme sama góor ñi ñu nekkee ay góor yaa ngi dégg moo tax mu waxoon ne yaa ayuhal bannaatu zahib na ila naylil ula wa amma ab abdaani fala yéen xale yu jigéen ñi rëj rëjloo leen ak buur ñi jëm ci kowe nga maanaam ci xam yàlla ak xam-xam ak tedda nga yaa ngi dëgg na ci rëj rëjloo ak góor ñi bu leen leen maye dara waaye su fekkee ne ci ay jëmm la nag déedéet bu leen rëj rëjloo ak góor ñi yaa ngi dëgg moo tax bàyyi jigéenam ñi xàgg nañ ci yàlla comme ni góoram yi xàggee ci yàlla te góor bu xamul yàlla jigéen la waaye jigéen bu xam yàlla góor la ndax benn ndox la moo xamee ne ku ko naan texe nga te góor ñi rek ñoom ñooy texe jigéen ñi moom du ñu texe waxin la na comme li ma la wax léegi góor boo xamee ne xamoo yàlla jigéen nga rek xam nga nuñ koy li ñu koy xamee ba ci aada ba ci aada góor ñi nga xamante ne kasaguñ leen kasag xam nga kasag mooy buur yi nga xam ne yóbbul leen ci àll bi yar leen gannaaw bi ñu leen jongalee ñu yar leen defal leen yarub aada ak cosaan xamal leen lan mooy xaddina dañuy dégg ñooñu góor yooyu ñoo gën a góore góor yi nga xam ne leen jongal nii rek bàyyi leen parce que duñu xam dara si àddina dañuy dégg waaye tamit bàyyi bépp boo xamee ne xàggoo ci moom sa jongo setut parce que xamoo dara yaa ngi dégg xamaluñ la dara dangaa jongal noonu rek bàyyi la noonu nga langar langari dem sa yoon mais nag bu fekkee dañ laa jongal ba pare yóbbu la ci àll bi yaa ngi dégg boole la ak ay selbe ñu lay posin di la cax ngay tekki cax mi yaa ngi dëgg ñu lay dóor di la jubbanti di la jubbanti ba soo si jógee nga nekk nag nit koo xamee ne dangay am savoir vivre nit koo xamante ne da am dignité nit koo xamante ne da ngay am ngor nit koo xamante ne dangay xam lu bëri dangay am da am ilmu nafs foofu noonu maanaam mbaar yooyu ñu daan def ci àll bi ñi fa jógee ñooñu ñoo gën a yaru ñi nga xamante ne demuñu fa ba tey jii nag moo tax suñu mag ñi yaa ngi dégg ñooñu gën a ñoo gën a yaru yaa ngi dégg léegi nag ki nga xam ne xam na yàlla góor bi nga xam ne xam na yàlla ak jigéen bi nga xamante ne xam na yàlla bokkut ak góor bu xamul yàlla bokkuñ sax yaruñu bokkuñu yow yow xam nga loolu bokkuñu parce que fi ñu leen jaarale moo tax fi ñu leen jaarale daf lay jox yite waaw yaamar ña nga may dégg mu ne bàyyi dem ba dafay def ci yow nite gannaaw bi nga nekkee nit te nite mooy mooy mooy xàgg ci yàlla boo xàggee ci yàlla da ngay nite parce que jikkoy yàlla yu tedd yi nga xam ne moom la nit di doxee yàlla yooya dafay nekk ci yow danga wax ji jikko yu tedd yi nga xam ne yooyu la nit di doxee yàlla dangay dëgg yooya dafay daje ci yow dégg nga su ko defee na boo waxee man la yàlla dëgg la waaye nag su fekkee ne jikko yooyu nekkul ci yow boo waxee yàlla nga naa fekk yaa ngi dégg naa fekk dëgg mooy di xoote ne yow mi ku xàgg ci yàlla nga te fekk buñ la testee ci jikko yu tedd yi nekk ci yàlla nexut ci yow yow duxuloo ne duxuloo ko xàgg ci yàlla waaye yow naa fekk nga dégg nga mu tax bàyyi mu ne sama góor ñi xàgg nañ ci yàlla comme ni nga xamee ne sama jigéen ñi tamit nag xàgg nañ ci yàlla góor bu ma jublu ma xàggali la ci yàlla jigéen bu ma jublu ma xàggali la ca yàlla mag bu ma jublu ma xàggali la ca yàlla yaa ngi dégg ndaw bu ma jublu ma xàggali la ci yàlla soppe bu ma jublu ma xàggali la ci yàlla même boo doowul woon soppe soppulu sax soo ma jubloo ma la ci yàlla ba nga far sopp yàlla ba ba nga far jeex ci yàlla ba pare mu ne sawaa sulu suuluuku wa sultaanu baa doolo itamit bu ma jublu ma xàggali la ci yàlla buur bu ma jublu itam ma xàggali la ci yàlla mu tax bàyyi ñëpp la am bàyyi am na am na ay góor am na ay jigéen am na ay mag am na ay ndaw am na ay buur am na ay baadoola ñëpp boo ñëwee si faydu baay bi ñëpp nga fiy fekk buur boo xam ne manqué lawul dara borom xam-xam boo xam ne manqué lawul dara yaa ngi dégg ndaw moo xamante ne manqué lawul dara mag moo xam ne manqué lawul dara yaa ngi dégg bàyyi am na leen ñoom ñëpp ndax lañ manqué le dëgg-dëgg mooy yàlla bàyyi moom lay def ci seen biir xol yi dégg nga <clears throat> léegi na bàyyi mu ne law shi'tu su ma neexoon man bàyyi am amma fayduhu faydoom bi foofu damir bi dafay dellu ci Cheikh Tidiane dana matale faydoom bi dana matale faydoom bi nga xam ne albasita bu tàllalu bi faydoom bu tàllalu bi dana mata fépp su ma neexoon man bàyyi su ma neexoon faydu bii dana mata jëm fépp danañ dëgg te nag wax dëgg yàlla fayda bi fi mu toll nii daanaka mate na de ndax amul benn continent ci àddina bi bu fayda bi dugg amul benn continent juróomi continent yi am ci àddina bi foo ci dem da nga fa fekk taaliba Cheikh Ibrahima Niass te te du continent yëpp la Baye Niass dem am na continant yoo xam ne Baye Niass tegu fa tànkam yaa ngi dëgg waaye dëgg amul continent booy dem ci àddina bi lu may ne lu may ne yaa ngi dégg eh, eh, eh, aarifu billah mu fa te xameewul yàlla lu mooy si ci ci ci ci ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu bàyyi mu ne bu ma neexoon itam wa adraku asrarahu dana ñu jot mbootu faydu almahit almuhita bi nga xamante dafa peeg su ma neexoon ñépp danañ jote ci mbootu faydu boobu noonu yaa ngi dégg waaye innal fadla bi yaddillaahi yu'tiihi man yashaa'u ngëneel yàlla moo ko moom moo koy jox ku ko neex Baay Ñas coobare yàlla la ku ko soob nga bokk ci faydu ku ko soobul doo ci bokk moo tax kuy ngand ngandul yaakaar ne yaa boole sa bopp ci faydu da woo sa bopp ci faydu baaya la ci boole bu la ci bàyyi boolewul doo ko dox wax naa la léegi ne am na benn woykat tiijaan bu wax ne eh, ku la wax ne tiijaan la woon jëloon naa wirda bi waaye banaa ko mu ne eh, bum la sonal maanaam bul ko faale bul ko tontu bu la fekkoon ngay naan kafe naanal sa kafe te nga xam ne cheikh moo ko football ci biti bokk ci ma sut cee bokk tariqa tijaan ku ci bokk doo ci génn faydu cheikh ibrahima bi ku ci xes ba dugg do ci genn ko dégg ma la dugg na ci genn na ci masul ci dugg masul ci dugg te rarement na nga koy dégg waaw wala tarbiya na ba beug de haguma ci yalla tarbiya go tarbiya naa nangami xat parewuma haguma ci yalla tarbiya wo waye bes boo tarbiya jël sur bi nim la waré diko defé nan la ko waxé da ngay dem ba jeex tak ci yalla te bul ko hapal fan bul ko hapal bes bul ko hapal wer bul ko hapal ay hat nek ci rek donte la fii ba ba ngay dee nekk ci rek dégg nga bàyyi mu nag loolu alima zalika fulaanun wa fulaanu kaza fulaanu ma sàmmaaw kala yaan mu ne loolu kay diw ak diw xam nañ loolu naka noonu itam diw parce que dégg naa ak gis naa bokkul waaw diw ak diw ak diw naka noonu diw xam nañ loolu parce que gis naa ak dégg naa bokkul ah, waaw ñun ñëpp ñun ñii ñëpp kenn ku ne xam nga ne bu nekkoon Baye fayet bi dafay mate fépp même boo nekkul fan si Baye sax même boo nekkul fan si Baye sax boo xoolee ni mbir yi di transformé woo di dem rek dalay leer ne waa ji ko neexoon ah fe mbiram mi dana xàgg fépp wala dina dugg kër dina Sénégal moom instant bi ñi dama lay wax ne kër gi Baye nekkul ah waxuma ne amul de waaye bareetul de yaa ngi dégg te amoon na jamono amoon na jamono euh, ñu dëkk Kaolack rek ak ñoo nekkoon ci fay bi waaye léegi yaakaar naa ruq-ruqaatee koñ yi yaa ngi dégg xale yu ndaw yi xale yi jigéen yi les petits enfants la booy yu ndaw yooyu ak ñu bëgg Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu balaa nga ko doon xam rek nga lal fi malaanu wasifa wala nga lal fi xal eh, eh, ñoom da ngay gis te xale yooyu noonu ñooy pépinière ñooy pépinière avenir u l'islam ñooy pépinière avenir u tarixa tijaan ñooy pépinière avenir u faydu ñooñu bu ñu màggee ci loolu li Baay waxoon ne dëgg-dëgg sama faydu bi dina dina mate wala su ma neexoon mate fépp te neex na bàyyi sax te man gëm naa ne àddina bi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg du taalibe Baay du fi yeewu du fi yeewoo dégg nga wax ji ndax gaa yi kan ñu ngi yeewu gaa yi gaa yi ñu ngi yeewu de gaa yi ñu ngi yeewu waaw ñu ngi yeewu parce que dem nañ ba xam ne seen sëriñ si dañ leen di nax yaa ngi dégg seen sëriñ si dañ leen di nax maas nañ koy yëg ci seen biir xol yi parce que xol yee commencé laaj bakkan yee commencé laaj mar mi da leen bëgg rey ñu tiim ndox mi rek te mënuñu cee naan looloo leen bëgg rey moo tax ma ne la lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg mbaam tan rek mbaam moom tan a koy mujjee rek dégg nga wax ji eh, bàyyi mu ne nag waaye nag wa maratan uxra taraw na ajaban beneen yoon di gis lu yéeme min di zal qut eh, zal xatmi ci sa téere zal qut bi ci sama téere imaamu nujaba daa ngi dëgg bàyyi mu ne beneen yoon di ngeen gis lu yéeme di ngeen gis lu yéeme beneen yoon boobu mu la kenn xamul kañ la <laughs> dégg nga ah mooy mooy mooy le niveau génération rek génération yi di ñëw rek waaw génération yi di ñëw rek waaw li Baye waxoon ne wa ubrisul jiil misaala loolu rek la de kese yaa ngi dégg mooy beneen yoon chaque jour chaque jour nga gis phénomène bu bees ci faydu ci xam-xam bu leer ci fasaaxa ci balaaga ci bëgg yaa ngi dégg ak rëj rëj loo ak njëkkante bi nekk ci bëgg yàlla bi ci tool yi bàyyi rek nga koy fekk dégg nga bàyyi mu ne beneen yoon di ngeen gis lu yéeme ci faydu bi nga xam ne mooy faydu Cheikhu Tijaani bii gis nga bàyyi jënd lépp jëbla jëbbalaal ko Cheikh Tijaani radiyallahu anhu taalibe nii lay mel taalibe mëdët bu ko yàlla mën a may ah na delloo sëriñam mu ne faydu bi faydu Cheikh Tidiane la beneen yoon di ngeen gis lu yéeme ci faydu bii bàyyi mu ne wazaaka kullan lii lépp nag faydatu Tidiane faydu Cheikh Tidiane la waaye madaduhu madad bi wala boog madadu Moustapha madadu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la lii yëpp lii yëpp faydu Cheikh Tidiane la waye madadul mustafa waral adnani madadu yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam wala bay jël lépp jox Cheikh Tidiane jël lépp jox yonent yàlla sallallahu alaihi wasallam dum taxawé né nak nek sen missionnaire nekk rek nak nek sen jam nek sen khadim nek sen han qadim yang deug nek sen lépp nek sen avocat nek sen lépp te haqiqatan haqiqatan deug deug mom moy sen siru parce que mom moy sen khalifa ci itlaq Yang ngi dégg seen xalifa ci itlaaq mooy doxal lislaam mooy doxal liman mooy doxal lihsaan waaye tamit moom mooy borom faydu bi nga xam ne moom mooy sauvé yaa ngi dégg mbindi fi bàyyi mooy sauvetage bi bu kenn lab bu kenn réer bu kenn gëlëm bu kenn yàqu bu kenn yàqule yaa ngi dégg parce que bàyyi moom mooy sauvetage ku ko jàpp da ngay mucc ci da ngay mucc ku jàpp bàyyi da ngay mucc ahadun yaqsiduni maa arafa laa amul kenn koo xamante ne ma jublu lu may na xàgg na ci yàlla yi te yàlla na ku fa xàgg mucc nga yàlla na ñëpp xàgg ci